Ndiémé Faye. Euh, vraiment moom course bi moom ça a euh, vraiment parce que def nañ tour Thiès yëpp bon satisfait nañ daal vraiment. waaw waa plan moom vraiment di leen remercier parce que mënoon nañoo bañ a def euh, li fi nekk lépp daal mënoon nañ ko bañ a def bon ànd ak xale yi ak jigéen ñi vraiment parce que fii jigéen ñi dañ leen tuuteel ñu nekk si. di ñu gën yokk fit daal ñuy égal ak euh, góor ñi genre yooyu yëpp vraiment kontaan ci waa Plan. Euh, Michel Thiou président de la fédération sénégalaise de cyclisme. fa randonnée bi dafa raar parce que ku la may occasion nga jiital jigéen ñi loolu lu am solo la parce que mënuma ko tegtal peut-être ci wolof euh, les filles aussi du talent mooy bu ma ko tënkee daal mooy jigéen góor ñi lu ñu mën jigéen ñi aussi war nañ ko mën ba gën leen ko daal moom la ñu naan léegi ci euh, nasaraan les filles aussi du talent donc ñun occasion bu ñu plan international may tey ba jiital jigéen ñi ñu jiitu ñu ñu war ni quand même ñoom war nañu mën a dawal vélo et mën nañu war a yëngatu ci lépp loo xam ni góor war na ci mën a yëngatu. waaw góor ñu moomuñu ko parce que aussi góor lu mu mën a def jigéen war na ko mu mën a dàq aussi parce que jigéen mën mën na góor tamit. donc ñun suñu rôle mooy développer aussi sunu discipline bu xam ni que au lieu ñu xool rek góor ñi rek ñoo ko mën a def du góor ñi rek ñoo ko mën a def jigéen ñi aussi war nañ ko def jigéen ñi mën nañ ko def jigéen ñi am nañu talant pour mën a def aussi lépp lu góor mën a def foofu laay gërëmee plan international ak madame jigo bu nekk fii xam ne mi ngi ciy dimbali moom it di yëngatu ci mbir moomu. parce que bu fekkee plan nekku fi woon ñun du ñu am occasion def lii tey loolu moo tax ñun bu ñu proposé affaire boobu ñun xaaruñu te ñoom ci lépp li ñuy yëngatu. pour développer affaire xale yu jigéen yeeg yooyu ñu nit ànd nañ ci ak ñoom hmm? donc loolu moo tax plan international vraiment ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di sant hmm? waaw du ñu bëgg ubbi fi benn école de cyclisme ci diwaanu Thiès parce que gis nga tey bu ñu ñëwee fii yaakaar ni juróom-ñetti jigéen la ñuy am gis nañu am nañu fii lu ëpp juróom fukki xale donc ñun amoon nañu programme boo xam ne du ñuy tijji benn école fii euh, au niveau de Thiès pour ñu commencer di former jigéen ñi fii parce que avant Jeux olympiques bu 2022 soxla nañu ay jigéen pour ñu mën bokk ci Jeux olympiques yooyu léegi loolu foofu la ñu plan dimbale pour ñun ñu commencé di former xale yu jigéen yu ndaw yi. Euh, campagne maa ngi tudd Diama Diop directrice euh, communication relations publiques bu plan Sénégal euh, ñuy gërëm ñëpp tey nag ñu ngi fii Thiès ànd ak fédération sénégalaise bu cyclisme li ñu fi indi tey mooy ne dañu nekk di lancer benn campagne bu bees campagne boo xam ne dañ ko tënk ci ñetti ponk. Euh, bu njëkk bi mooy leadership maanaam euh, jiite bi nga xam ne jigéen ñi war nañ koo mën a jiite nekk ci kanam euh, jël ay responsabilité mën a jël ay décision deuxième ponk bi ñu ngi ko tënk ci liberté mais mun naa wax sécurité sécurité dans les lieux publics sécurité ci ci seen ay yëngu-yëngu dans les lieux publics ak ci réseaux sociaux yi ndax xam nañ ne xale yu jigéen yu bëri ñu ngi ci réseaux sociaux yi waaye tamit Euh, bi ci des mooy naka la ñuy représenter xale yu jigéen ñi naka la leen di wonewee euh, ci à travers les les médias donc yéen médias yi am ngeen ci benn rôle bu am solo te boo jëlee représentation boobu euh, leadership boobu ak sécurité boobu ñun euh, suñu xel dafa dem ci sport bi ñu demee ci sport c'est vrai njëkk nañu laal yeneen sport ci dëkk bi euh, te te dafa nekk euh, benn benn benn centre boo xam ne mënuñu def dara te boolew ñu ci waa Thiès donc bi ñu xalaatee sport ñu am nag benn collaboration bu yàgg ak fédération sénégalaise de cyclisme ñu ne waaw ndaw yu jigéen ñi am na lu leen yàlla may am nañu talent donc pourquoi du ñu mettre en avant euh, potentiel boobu nga xam ne xale yu jigéen ñi am nañ ko à travers le cyclisme donc loolu moo ñu indi tey ñu organiser benn randonnée cycliste euh, fii à Thiès ñu am ci contentement torop na xale yu jigéen ñi bari nañu euh, ñu ngi fi xam naa ni course bi dina xaw a métti tuuti ci xale yu góor yi tey ndax euh, wane nañ seen seen seen seen seen xarañte ak seen seen mën-mën euh, ci lu mu gàtt gàtt bu ñu tàmbalee léegi ci kanam xam naa ne dinañ kontaan torop te ñun loolu moo ñu fi indi libérer potentiel bi nga xam ne xale yi jigéen ñi am nañ ko euh, ci ci nga ci li nga xam ne mooy cadre campagne bi ñu tuddee ñun Aux filles l'égalité Bon, je trouve que c'est extraordinaire parce que nous aussi, ça fait partie de notre plan. Bon, c'est une organisation de plan international, mais nous, nous avons un agenda c'est-à-dire un agenda qui va aller jusqu'à 2022. Donc nous avons sauté parce que vous savez que Plan aide beaucoup les filles. pense que le thème, c'est les filles euh, aussi du talent. Et là, on va le prouver aujourd'hui parce que là, ce grenier qu'on vient de voir, c'est-à-dire toutes les filles qui sont là, par exemple, vont nous aider à développer le vélo au Sénégal. Donc c'est très important. Vous avez vu on a vraiment une très grande affluence pour les filles. Donc merci à Plan International vraiment de nous avoir donné l'occasion d'être là ce matin. Ah mais bien sûr, parce que vous savez, euh, les gens pensent que les filles ne peuvent pas arriver à faire certains sports. Mais c'est faux, c'est par Donc l'occasion qui nous est donnée, c'est de montrer que les filles aussi ont vraiment du talent. Ils ont du talent, donc c'est des filles superbes et tout. Là, on a été assaillis ce matin. Donc, ce qui nous donnera l'occasion maintenant d'envoyer une mission à Thiès pour former toutes ces filles qui sont là aujourd'hui. Donc, même nous allons créer une école de cyclisme au niveau de Thiès pour pouvoir recruter toutes ces filles qui sont là. Et c'est très pour nous. Euh, c'est-à-dire, euh, il faut apprendre euh, à faire du vélo. Déjà, faire du vélo, je pense que c'est une base quand même de la vie, c'est comme savoir marcher. Hein? Et puis là, on a tendance aussi à aller vers l'écologie, à aller vers l'environnement, à aller par exemple dans des villes propres et tout ça. Et il n'y a rien de tel que le vélo pour le faire. C'est là où je dis que nous nous remercions au plan international, parce que les gens pensent que les filles ne peuvent pas faire certaines choses, certaines, certains sports. Et là, je dis que non, il y a une très grande possibilité. Nous avons des femmes, des filles plutôt très talentueuses. Et là, l'occasion est prouvée encore ce matin. Donc voilà, ce slogan, c'est pas bidon, hein, c'est pas quelque chose de bidon. C'est quelque chose de réel. Hein. Vous, vous êtes là, vous me tendez un micro. Pourtant, vous êtes une fille, vous êtes en train de faire votre boulot correctement. Donc les filles aussi peuvent prendre même la place des hommes. Hein. Donc il faudrait que nous, au niveau de notre fédération, internationale, on nous demande de prendre beaucoup de filles. On nous conseille même, de toute façon, ce n'est même pas un conseil, ce sera obligatoire d'ici 4 ans. Il faudrait au moins qu'on ait 40% de filles. Au niveau de l'Union cycliste internationale, le mot d'ordre est donné de filles. Donc c'est ça, et nous aussi, nous sommes obligés même de suivre ces instructions, et c'est quelque chose qui sera vraiment extraordinaire pour le Sénégal. C'est important Bonjour, je suis Madame Diama Diadigo, euh, directrice de la communication et des relations publiques de Plan International. Alors cette randonnée pédestre s'inscrit dans le cadre d'une... Euh, cette randonnée cycliste, excusez le cadre d'une vaste campagne euh, que nous avons lancée euh, il y a euh, il y a mois. Le lancement officiel va se faire euh, en début de semaine, le 25 juin, euh, à Dakar. Nous avons initié déjà plusieurs activités à travers le pays. Euh, et cette randonnée s'inscrit dans le cadre de, des activités sportives qui accompagnent cette campagne Girls Get Equal aux l'égalité. L'égalité pour les filles. L'égalité dans le domaine du leadership, l'égalité dans le domaine euh, de la liberté de la sécurité dans les lieux publics et sur les réseaux sociaux, mais également l'égalité dans le domaine de la représentation à travers les médias. Donc lorsqu'on parle de représentation, on peut penser au sport. Lorsqu'on parle de leadership, au sport. Lorsqu'on parle de liberté de bouger, de s'exprimer dans les lieux publics, on peut également penser au sport. Et le cyclisme aujourd'hui euh, est vraiment un, un sport qui euh, a peut-être été négligée un petit peu, euh, du moins sa partie féminine au Sénégal. Et nous pensons aujourd'hui que les filles ont ce talent. ont cette capacité de pouvoir euh, porter très haut les couleurs du Sénégal dans le cadre du cyclisme. Donc nous accompagnons cette initiative avec la Fédération sénégalaise de cyclisme. Euh, nous avons intitulé cette journée « Les filles ont du talent » parce que nous y croyons. Nous croyons euh, que nous pouvons aider les filles à libérer leur potentiel et c'est un petit peu l'objectif de cette campagne euh, de plan international.